أنت الله لا إله إلا أنت وأنت رب العرش العظيم أنت أهل المجد والثناء أحق ما قال به عبد وكلنا لك عبد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن الخطب الأكبر برزخ البرازخ إمام أئمة المجتهدين من جمع بين شرف الجرثومة والدين وشرف العلم والعمل واليقين وأحوال الربانية الشريفة والمقامات العلية المنيفة كامل الأنوار والمحاسن قوي الظاهر والباطن بهي المنظر جميل المظهر منور الشيبة عظيم الهيبة جليل القدر شهير الذكر ذا قيمة بعيدة وحال مفيد وكلمة نافذة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي قيل في حقه هل من مرب حوى كمالا كمثل شيخ سيدي أحمد التيجاني وقام بويل المواي أه مني هل من مرب حوا كمالا كمثل شيخ سيد احمد التيجاني دا بوغ نغي تونتو ما شريف خمغا لولن ماي تونتو نو نو باي واخ لين مكو خمغا لوتخ كل المربين سانز اكسبسيون لسيدي اسبه وعيالا ندخ سيدنا الشيخ موم فكان خطبا وكان غوصا وصار صخمهم شيخ ختما على الرجال سيدنا الشيخ يفيد للاولياء طرا باذن رب الورى تعالى لولو دو تاي من ادم من ابينا الى نفق في السور لم يضعلا موتاخ مو خدما يا على رقبه كل ولي الله من لدن ادم الى نفق في السور كوكاي ابي العباسي ابي المحاسني ابي الفيوداتي ابي البركاتي وبالخيرات مولانا احمد بن محمد التجاني الشريف خنا باكنا يالا خنا باكنا يوننتي بي خنا باكنا سيد الشيخ احمد التجاني وا آه، لغي نك ما باك سما سيرين ورضي الله تعالى عن خليفته الاكمل الخطب الجامع والغوث النافع كما خال باشا حاج منصور من ذكر شيخ عالم متورع خاد لنا ما إلى الهدى بعناني كما يبقى بك شيخ لا تقي بو خمني لا يظن بريبة على استقامة بالإله المعاني ماي بغا واخ مو عين الحقيقه والشريعه موم انه يهدي المريد لخالص الدياني او كما قال باي شيخ هادي توري لا يكفي انك شيق بعده ابدا ان كان يمكن لقياك ابن عثمان نعم الى ترك هل الشيوخ وان جلت مراتبهم الا التلاميذ اذ لاقوا ابن عثمان نلاجناكو نعم، تيميري ات bañu né ne Seydil haji malik def na téméré at ci bir souf kenn tontuwuma mu né kon sañ naa bàkk sama mbeur mbeur mi nak suma ka daan bak mam xëy diko bak dama daan ñaan ñu bak le ma ko te loolu waa Gambie min nañ ko fim tolu ni mbeur mi mom faaw ñu bak le ma ko ba wa ci waawon degg ni ñu ngay bak suñu waji fan. ci wa ma ñu bëgg départ. lillahi daruka min shayqin yatu

man dama ne une minute de silence boobu Seydi El Hadji Malick da ciy a yee xam nga nan laa bëgg ñu defalee Seydi El Hadji Malick une minute de silence mu ñun ñëpp ñu jug taxaw beneen bi topp mooy ku ci am téléphone am nga ku am téléphone. ku téléphone maa ngi ñaan nga taal sa torche lampe bi mu leer nga jug taxaw ñu bàkk Seydi El ma ne eh falaas yi teg na falaas yi teg.

desi ga dafa sëñ Babacar Si doom doom diisal na Pape Baye loolu lañ ma def waaw moo tax ma ne ko xeeroon na wul doo dégg dara ma ne dan maa yóbbante bi may ñëw xam nga lañ ma wax ngeen dégg yóbbante bi. waaw lii de buy ñëw moom ma yokk kii la. lii moom lii ñëw ma yokk kii la. ak ba man lii buy ñëw dama koy yokk xam nga lii dafa baax ci yóbbante saa yi. yéen mën ngeen leen ci xaalis waa Gàmbi. waaw man mën na leen ci xaalis. xaalis waaw. xanaa lu tax ma ma def ci bos. ay jox naa la xaalis denc ko. ñu ngi denc xaalis. la Ibrahima yow sa xaalis ak ci risque. waaye ma jàngale li ñuy denc xaalis moo ko wax caa. lii lan la. voilà. gis nga. Wow, bila like bench. we like mal xool. kee mooy borom lekkat gi dina la wax mooy Hah? léegi. xoolal nii lañ koy. ñëpp. xoolal. yow boo nga doon da nga dugal. déedéet. nii nga def. xam nga boo Dali duga rek pak, ini kan, kalau pak nyari barang yooyu nga tahu, mau nggak dawal cibir pos, poste bi. Ba mu wóor la ne poste bi fenn bënnu. Boo loxo bi bés wala rocc. bés rocc. ba mu leer la ne des na fa nga doog a dem damaa dem kaw la kaw la. billaahi wallaahi ñu jox ma xaalis bu bàyyi xaj maa ngi benn jigéen daanu rek ndax seen xaj maa ngi jox ma xaalis bu bari may jaay ëllëwle nee na may jàngale ni ñuy jaay Seydou taxawal bu dem de. alaaka taxawal dama lay wax ni ñuy jaay ma wax xoolal bu leen dem de bu leen de yow bu wax xoolal ba dem kaw la ba mu xaalis bu bëri may jaay ëllëg li Moussa Moussa xoolal man damay jàngale xaj naa ni ñuy denc xaalis aw kaw la nga xam ne lu ne lañ jàng ma jàngale ni ñuy dencee xaalis bi ba dugal ba génnee ñibbi kër li ma njëkkee xam nga poste bu mag bi fi ngay def xaalis. mais bee dama ko pas parce que dama doon jàngat sama kan mi yëpp begini may génnee fii tekkul fii fii la nekk parce que lu am solo yëpp ma génnee ba mu jeex fudduwaat jël loxo bi dugal dañu ma dara yàlla di dogal ba ma dellu si waat ren ma ne leen daaw dama fi jàngale woon ni ñuy dencee xaalis bàyyi yëpp toog fii ma ñibbi kër ga def li may def yëpp ba dugal sama loxo gisuma dara fii am na ku ma fi luxus daaw <laughs> ma leen daaw fii am na ku ma fi luxus yàlla dafa a maye am na ku ma fa luxus daaw dañ luxus. waa ji nee na wal këf fu maa gaa yi neen actualité la ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fonk gi mu fonk jigéen alaaj jërëjëf Seydou bu jërëjëf yàlla na yàlla fay la ñëw ndax fonk gi mu fonk jigéen xaj Moussa Ba ñu ne yéen jaar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen xaj Malick jàngale actualité sëñ Mor mu ni yu jaar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen xaj Malik nee na yonent bi loxo bës na tegu ci kaw jigéen mu koy dóor moo ci intéressé xam nga lu tax li ñuy wax léegi ne violence faite aux femmes violence yi ñu def ci di leen dóor di leen xas yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy jàngalekat bi gën a mat ci àddina ñu taxaw wax ni yonent Yàlla Muhammad mës na dóor jigéen kon kuy roy yeneen ci waru dóor jigéen mais xam nga lu ci garaaw toujours rek Hadj Malick ñu si Hadj toujours ma wax ko moo xam Moustapha moo xam Saalum moo xam Hadj Mansour Gueye la kum ci mën ci doon loo yokk sa góorgóorlu ci sa aliwu doyul parce que su dee ñun kese suñu biir Moustapha la wax daf may neex parce que seen Hadj Malick laa gëm la may wax daf may neex parce que seen Hadj la gëm Hadj Saalum la muy wax daf may neex parce que seen Hadj Malick ci sa wet jàng li nga jàng wala mu jàng lu raw li nga jàng te Seydil Hadji Malick rek la kontu léegi nag yow boo yemalee sam njàng wal kafu ma darabat Alaaji Malick nee na yonent Yàlla Muhammad sallallahu imam xam nga lu tax imam ma nga lu tax mu ma ta fonk boo juddoo imam mooy jiitu ci yaw te buñ la tegee xam nga ni ñuy def teg imam bi ne ko imam tuddal xale bi mooy ñaanal ko ñu ne yow yaay imam day nob nob ci nopp ndeyjoor bi li xam ci te buy koy def gars yi duñ ko dégg ma ni lan moo la wóor yow papay xale bi su fekkee respecté woo woon imaamu koñ nga ñëw jox ko sa doom pour mu tudd ko mu ne xale bu màggee am doon sàcc. boo <laughs> tax ñu mën ni boo fi jugee imam mooy mujj ci yow. actualité la day jékki ne joxoon nañ ko bu yàgg ñu koy romb mais duñ ci bàyyi xel ma ne war ko fu ma dara rek ñun ñëpp ñu koy jàng xaj Pape di ko way muy neex ñuy koy bégee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu sudoo jigéen nit ñi di ko jël di ko traduire di ci diggante ak ñi nga xam ni ay tubaab lañ te di jam l'islam wala boog ñu ay nit ñu ñuul ñu ñun jàng tubaab jàng diine waaye gëmuñu diine xaj ma ne xool war ko fu ma dara benn waay lancé ma def ma stati ko ne i waay lii neex na mu message ma ne ma waaye yaranti bi mos naa doon jigéen waaw waaw way wi neex lool ma stati ko naan ay waay lii lii na mu neexee la muy wax moo ko ëpp solo mu ne ma ay message ne ma waaye yaranti bi mos naa doon jigéen léegi ma lan mooy sama lay lu Alaaji Malick wax rek gëm naa ko d'accord man lu Alaaji Malick wax dootuma ko werante waaye dama ne loolu sama diggante ak xaj Malick sama diggante la ak sëñ Mor sama diggante la ak Mbay li seen Hadj Malick wax bu ñu ko werante mais ñi nekk ci suñu biir ci gëmuñu Alaaji Malick nag te ñun ñu war a layal Alaaji Malick <laughs> mu ne ma yarante bi mos na من أكو جرجة مستدور جيجي يدور بدور الله هاو تلي نجي يوم تي مستدور جيجي واي حديث بي دي وان كفو ما دربا لي على دي مالك واي حديث عائشة أكو نتلي عائشة مو من نتلي حد مالك وان كفو ما دربا مو مع عائشة من بيرسون بي مو نتلي وقت نجي يوم تي بدور واو هتسألوا moom Aïcha mi nettali ne wal këf fu maa baax moom ci boppam sekk ndaanaan moo nettali waat wax yonent bi mës na ma dóor. loolu lay wax ji léegi Aïcha même Aïcha mi wax wax ji rek suñ ko xoolee nga xam ne El Hadj Malick wax na ne Aïcha bokk na ci ñi raw ci histoire l'islam ci xam-xam. فقيهة عبد ورد القدر والقبع من بعد ألف حديث وهي لم تصل موح وح جوجو نياري وحي من دلو أم كونتراديسيون تعايشة من خلقنا ليك نم بروبليم بعايشة مي بروبليم بي نم نم خلنا نجي تالي بسير حاج مالي ألا دي مالك وحنا ولك فما دارا بطرق دم يوانا وقنا عايشة لنا وقنا ديو لنا وقنا دارا لبو بين رجل ولك فما دارا بطرق دم يوانا ليك نكينيو dali yow kon war ta yem ci man El Hadj Malick laa gëm lu mu wax jeex na Aïcha moo nekkale Aïcha dóor bi Hadj Malick kot la maa yow xoolal Aïcha moo nekk ne man yonent bi dafa mos a dóor mu metti xam nga lu tax yonent bi dóor Aïcha jàppal mu dóor bi nag xam nga actuellement nii rek su ma nee lu tax yéen tamit dóor Aïcha benn waay dagg ko rek dugal xam nga lu tax yéen tamit dóor Aïcha Aïcha li muy doon doon borom xam-xam li yéen tamit di set set li yéen tamit di sell sell li yéen tamit di doon ki gën ci lu yàlla bind teewul Aïcha muy jabaram daraan ñaaw ci yéen tamit léeg-léeg. wàllu nit a dikkal ko mu am lu mu ñaaw njort ci yonent xam nga yonent mës na def li ci kaaf nekk ci bir jàkk ji di jaamu yàlla du génn guddi benn soxnaam ñëw seet si ko moom ñu jàll Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ko soxna si seet seet ay 3 heures du matin rek xaj naa yonent bi génn di ko gunge bi mu koy gunge yonent baa ngi dox ànd ak ku jigéen 3 heures du matin 4 heures ci lëndëm gi am ñaar ñu nekk ci seen kanam ci kanam yonent Muhammad sallallahu alayhi mais biñu ñu gëstoo gis ne yonent bi moy dox rek ñu yok seen ay jéego di waaxu yonent bi leen mahlam mahlam mahlam ala rislikuma def leen naan taxaw leen ñoom ñaar ñu taxaw mu ne inna ha la safiya inna ha la safiya ki sama soxna la safiya ñu xol ko xamne safiya la ñu téye seen bopp ne yaa rasulallah ñun dinañ xalat ci yow lu ñaw mu ne leen du lolu inna shaytana yajri fil insaani majra dam mu ne leen sa direct di nekk ci yow ni muy dawee di circuler noonu la seytaane di dawee ci yaamu doomu aadama di di circuler damay ragal mu ci seen xel lu leen alak moo baax moo tax xajmaali mag ñi dañuy wax ne weddi du du ragal dindi tuuma la te dindi tuuma boobu du yow pour sa def mais dimbali sa bokkum jullit la léeg-léeg nit am lu mu jot <laughs> Aisyah yang bi génn li tax mu jóg yonent bi dafa bàyyi ba heure bii wala sax lu ko jiitu yonent baa ngi tëdd ci néeg bi Aïcha ngi tëdd yonent bi jékki-jékki jël ay dàllam teg ko nànk mbalaan ma mu taraxlaayoon yonent bi ko lal sallallahu lal di dox di dox ba ci buntu bi mulan laal ke buntu ubi buntu bi di di xool ba xam Aïcha koy gis wala dis, gis bayi Aïcha bàyyi bi ñu teel Mouhamad génn tam mu delloo buntu bi topp yonante di temp temp xoolal yonante bi di jàng muy jàng yonante bi di yang muy jàng yonante baa ngi sentir ci takkandeer bu ci jox yonent bi bàyyi xel takkandeer xam nga actuellement nii man maa ngi am takkandeer yonent am am sala seen di bàyyi xel takkandeer yonent bi di dox kooku di dox di ko topp muy dox kooku di dox di ko topp ba mu yàgg rek yonent bi wëlbati ko bi mu wëlbati ko wax waxuñ foofu ba mu yàgg sax yonent bi daw ci li mu nettalee moom Aïcha yonent bi daw bi mu dawee rek mu ubbi buntu néegam dugg ci biir néegam rek Aïcha moom tam daw xam nga koy topp guddi bu dee fëxat ne nooy def yow ki ngay toog te xamoo fu mu jëm bu jékki-jékki su may daalam dox nga def su ma say daal dox parce que moom ngay toog te xamoo moo tax yow rek lay toog wóorul fii nañ topp yàlla keneen ci biir xool xaj maa Aïcha noonu mu doon toppee yonent bi wallahi yonent bi di wër muy wër ba mu yàgg yonent bi taw rek moom la mu daal yonent bi ubbi néeg bi dugg tuuti Aïcha moom fekk mu dugg yonent bi ne ko Aïcha kon yow yaa ngi doon toog Aïcha yow yaa ngi doon toog Aïcha da ngay ragal dafa am looy xalaat ci ci sama jëmm ji man parce que yéen daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xeetali jaam ni léegi-léegi yéen daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëdd ba guddi jot mooy lijjanti koor lew barzak te xam-xam boobu Aïcha amu ko lu yàlla lu yàlla jox yéen daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la mu ne ko yow Aïcha man ngay dox may dox nga. Aïcha lii di sa warteef Aïcha lu tax ngay def lii Aïcha lu tax ngay am xalaat bii ci man Aïcha lii bul ko defati. sëñ ma sàmm. waaw. xoolal moo tax foofu mu dóoree baaxul bëri dox la loolu loolu baaxul nañ ko bàyyi. waaw. dama am sama benn xarit gis nga xam nañ dañu dem kër. am benn waay bu dóor kenn mu ne ko xam nga kañ laa bàyyi di fooy dóor mu ne ko bu ma sa accidenté ñu ñu jël sama benn xarit ñëw di ma tooñ rek dóor ma loolu moo dal Aïcha ki jàmm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dóor bi Aïcha di wax mooy yow Aïcha lii du sa wareef di waxtaan ak sa soxna comme man ni yaa ngi koy dégg est-ce que bàyyi naa këm këm yaag yooyu de maa ngi ci daara El Hadj Malick ci fi mu toll nii waaw bi moom ngeen dégg ci daara El Hadj Malick ci laa ne xoolal yow Aïcha lii mu sawre yow Aïcha lii war nga koo def man sang àdduna ak alaxira Aïcha lii du sa warteef xam nga xam nga xam nga Moustapha doon am na mais loolu kan moo koy àttaloo mais loolu ñun ñëpp dañ koy def mais léegi ki nga xam ne loolu l'islam te jàng l'islam comme yow war a ñëw interpréter loolu sama sëriñ bi ma jàngal man nga xam ne taxasus fi ilmul hadis la def ci ci hadis la spécialité wu nee na bi nekkee Madinatu Munawwara di jàng dafa am benn waay bu nekkoon ak yow di jàng baax lool ñu bëgg waa ji waa ji dàq leen a jaamu yàlla mais dàq leen a góorgóorlu sax ci seen i diggante nee na ba ñu jàng ba war a jot seen i diplôme xaaj maa la xoola waa ji ñëw dajale leen ñoom ñëpp ci néeg nee na sant naa leen gërëm naa maa ngi dellu nag fa mu jógee ñun ñëpp ñuy jooy yëkkat ngir waa ji jëflante bu rafet bi mu doon jëflante ñoom ci biir daara ji mu ne leen maa ngi dellu mais dafa am lu ma leen bëgg a wax wala may dellu ci wàllu honnêteté ak xam-xam bi ma fi jàng yëpp ak diplôme yi ma fi am yëpp ci Madinatul Munawwara man du ma jullit waaw mais dafa am ONG yu ma délégué woon. yoreel ma sama lépp kër sama lépp njaboot ngir ma ñëw jàngi si naka laay contradire xam l'islam man kon su yéen jaram Muhammad sallallahu alayhi wasallam Aïcha waxee ne bul ko fu ma dara bat mës na dóor Alaaji Malik sànni ko Aïcha ñëwaat ne yonent bi dóor na ma war nga xam luñ ñu ki yow taalibe bi dóor bi ban façon dóor xam nga fa lahada nii lahada baatu lahada la Aïcha utilisé lahada xam nga fa darabani fa lakamani fa lahadani xam nga fa wakasahu Muusa loolu mooy ba mu ko doon découpé fa wakasahu Muusa bokkul ak itam fa daraba fa lahada mooy xool nii baaraam yi tànn ñu ah. ok léegi nag Aïcha li mu nettali ba mooy lii. ne ma nii. teg loxo loolu war nañ nga xam ni. waaw waaw. Mbacké ci laa nekk dëkk sànq xam nga lu ciy déggee mooy li sama xaj Ibrahima Sakho wax ne xilaafu zahab bibliothèque la dégg naa sax Moustapha mii benn bés mu wax ne léegi sax arab bu nekk bibliothèque la ma ne léegi sax nekkatul arab bu nekk waaye peut-être sax baat bu nekk waaye mën na am sax arab bu nekk sax léegi bibliothèque parce que xoolal ma këf maa dara li ci nekk ci biir ay xuut xuut yu ñu war a leeral ñun bu ñu gëstu ñu wul fi ñu jëm bu ñu gëstu jiwul yabel dugg motax lool daf ñu wara servir ñu lu ci suñu la ñu parce que ci lañu mëna jappat japp bu deugër pour mëna taxawal suñu diineeg suñu tarix wallahi amatu lu ci ëpp doole suñu daayira yi motax xol xoolal ku jàppoon fukki loxo jappal dollil benen fukki muy ñàkk ku bayyi won benn loxo dollil loxo yi nga amul yëpp parce que lii moo fi des pour dundal xadis lii moo fi des pour dundal xam-xam xaj ma kon tur daayira yi da nga jàngoon ti laa ba ci buntu Zeyna كالدنيا وفي عجب نقي من طيب مغرور في جهنم آي وجب بين طيب معناه بحرك من قدور فصار في سلسل Seydina Muhammad nekk fi ma ne jóg leen taxaw ni màggal yéen ku sopp jërëjëf moo sañ a taxaw ci kanamu yàlla ku dul yonent yàlla Muhammad bés booba da ngay abale ku dul yonent yàlla Muhammad bés booba da ngay jiit ku dul yonent yàlla Muhammad bés booba da ngay jàpp moom rek dong kooku moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ëllëg yow ma xiyam mooy am sago saxaw ci kanamu yàlla parce que xam nga lu ko may nee na yonent yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla jox na leen benn bés benn bal boo xam ne bu ñu ko tiiree dafay jam directement directement la jox oustaz dama ko denc denc

ومحمد نبيا سما فوق السماء كي نزامي ودعوة الغمام أنا صبي

Can we see ma bàyyi xaaj Malick mu yàggale mais ngeen déglu ma 30 secondes li ma leen waxoon 30 secondes Aïcha waaw xam nga ñi nag sama waa kër leen Adja Aïcha ak soxna Fanta ñoom samay ci bopp lan ñoom tabarakallah euh tabarakallah tabarakallah sama Xaja ñëw nga tabarakallah Xaja ñëw na Pape xam nga nak man Fanta jere jërëjëf haj malik xam nga Fanta mi sama genn wal xam nga lool du dugg lu ma yëgul du ma dugg lu mu yëgul sama waxta lool sama xarit la gaa yaa ngi reetaan waaye tabaarakallaahu Assane xaritam soxna Aysa jërëjëf ah waaw waaw waaw incha allah jërëjëf damaa téye micro yi ba sama loxo yi di métti ma ne maa ngi daaneel micro yi dafa diis wax nga dëgg dama war a commencé entraîner xoolal lan laa doon wax. xam nee na ma tey da nga rakkaat ci li ñuy def fexe amul. góor Moussa Wade ba dégg yi mbaa def ngeen seen seen dërëm ci liggéey jumaa ji seen liggéey dem na ci dërëmu jumaa ji ah, man Pape man waa Gàmbi ndax seen dërëm dem na ci liggéey jumaa ji jumaa ji ah dem na jaar ah ci wér mais Gàmbi léegi dagg nañ seen ah, man xam naa ne xew fii bii nag kon moom moom xaaral ma jox ko Pape Malick muy ñibbi caawa man ñibbi ma papam bii quoi moo tax boobu moom téye ko rek donc affaire bi ci waa ji moom ah mais ah Pape lii de lañ ma jox lii de li ma jox lañ ma jox ma de ma ne xaaj Malick man damay daaneel bàyyi la waaye xanaa lii du ma ko yóbbu ci jumaa ja ah xam naa xam naa bu ñu jógee fii rek ñoom xaaj Malick def def pexe. xanaa ñu bëgg a julli ci xaaj Malick booy su ngeen fi jógee yéen ak ñoom oustaz lii maa ko moom. waaw lii ci man la jëm lii ci man la jëm sëy na bu bii ci man la jëm ma ne bii jëmul ci jumaa ji ci man la jëm. Amérique loolu la. fajar bi fu mu jëm ah ci jumaa ji la jëm am ah, papa loolu ci jumaa ji la jëm yaa ngi bi ci waaw man de wu caaw man Dakar laa jëm. waaye mu ngi ñëw ci jumaa ji. waaw kay ma ne xay xëy na après ba may booy dina ko dajale ak ñoom oustaz ñoom Moustapha ñu coordonné. ñoom it ñu xool nan la ñuy def pour nit pour suñu dërëm ñu wax daayira bi dem ci jumaa ja loolu ci farata yi la bokk. waaye nawet mu déglu ma jox leen yëpp a Serigne Babacar Mansour. Serigne Babacar Sy Mansour nee na. jërëjëf yaay booy. ah jumaa ji. waa lii nag ci man la jëm jëmul ci jumaa jumaa ji yal ko ubbee insha allah jumaa ji kat yal nga ci julli. What do I do? déglu yóbbante xalif général moom lay déglu incha allah yóbbante bi maa ngi wax yóbbante xalifa bi li may départ xalifa bi dafa am lu mu yóbbante balaa loolu xaj naa rek ñu ngi lay nuyu di la ñaanal nag yow sunu xarit nga ku yéene ndaw ñëpp jëm ca kanam yàlla xam na lool moo xam ñi way yalante bi moo xam ñi koy waxtaan ñëpp la yéene ñu am ndam walla yàlla xam na lool ñëpp la yéene ñu am ndam xaj na yàlla yàlla defal na sutura moo tax foo jaar am ndam parce que ku yéene nit ñi jàmm faaw nga am jàmm ku yéene nit ñi ndam faaw nga am ndam moo tax faaw nga am ndam faaw nga am ndam incha allah yàlla yàlla sàmm xaj naa ne booy maa ngi lay nuyu nuyu waa daayira bi yëpp ñu xaj mu mbay xaj mu jëng ñu oustaz xaj euh, mu safa euh, sunu imam xaj malik ñoom ñëpp ñu leen di nuyu xaj ba malik kee sama mag waaw adama lañ am na ñeenti jabar xoola kii ci téléphone bi sol lu ñuul mooy ñeenteelam Allemagne la nekk Adama Gaye dafa yor lu ñuy wax leket waaw leket bi nag jërëjëf oustaz yaa wax jërëjëf lekkat bi nag dafa ay mbir yu mu ciy def am na ñeenti garab léegi nag damaa woo sama papa ba mu ñëw sama doom baay ñoo bokk baay damaa woo sama papa ba mu ñëw mu toog sama papa toog ma ne ko papa am na loo xam ne ëpp na kii moom mag gaa mais juddoogul am na ñeenti jabar nañ ñu réew yi ñëw ci biir kër gi bu fekkee doomu baay ñuy woot sama diggante moom dëgg la jox ma ñaari jabar mu mujj yi sama papa ne ma diit waay kee sama soxna sa papa kee sama soxna sa papa eh, Adama Gaye ak sama papa ñoo exiko nii sama papa ñeenti Adama ñeenti. ak maa ngi sëñ Babacar Moussa nee na ñi ma bëggoon a nuyu yëpp ndeysaan ngeen baal ma ko temps bi moo xat yàlla sedd na lool waaye suñu sañoon kanam yi ñu fi gis yëpp te ñu bokk ak ñoom ñu jaar ci seen tur. xaj maa ngi lii xaj Saalum mu baax nii dafay tabax daara Sidi Xaj Malick kër Sidi Xaj Malick ñun ñëpp xaj Saalum Cissé nga xam ne jàmbaar ñun ñëpp ñu war ci def suñu barkeel ñun ñëpp la ñu war ci def suñu barkeel. maa ngi ñaan bu message bii may joxe daanoo ku ci nekk Hadj Malick lu mu mën a doon rek nañu ko indi teg ko ci table bi ñu def ko ci daara seen Hadj Malick ji Hadj Saloum Cissé mu le baax lool yiw lool bëgg taalibe yi lool waaye bëgg seen Hadj Malick ñun ñëpp ñu waroon a jël suñu doole tabax daara ji waaye matewul ko ñu jàpp ci kaw xam nga yóbbante bi lan la sëñ Babacar Mansour nee yéen waa Gàmbi yéen waa daayira sopp sëñ Babacar si maa ngi leen di ñaan ku ci ne buy waxati ci moroomam na ci wax lu rafet bu xooloo leen naa si. Eh, eh, eh, waaye eh ñun dañu jox ay programme ñu jeex xaj Moustapha mii dafa war a ah, ne. Ah, Mustafa. Mustafa kaay mu dem Mustafa kaay. Mustafa kaay mu dem. Mustafa dañuy ngeen. yal na yàlla yërëm. di ci daara di daara Mustafa dañuy ngeen. Mustafa dañuy ngeen. Mustafa li moom daa faral di xel Mustafa. Mustafa moom ku man ci daa ku man ci téere rek nga ne. ah. ah dañuy ngeen. su ma autour Mansour ne. wa qulu linnaasi husna. kuy waxati. kuy waxati na nga wax lu rafet jëme ko ci nit ñi loolu mooy yóbbante bi ma ne waaw sëñ Ba ko mën soo neen bu ñu delloo kër moo xam ndey moo xam baay moo xam ki ñuy liggéeyandoo moo xam sa moo xam sa moo xam sa soxna boo demee bay wax waxal lu rafet maa dugg ma xamul li naa soxna salaamaaleykum wa rahmatulah. yéen a ngi yéen ci kanam jox ko sa morom soppal sa morom Lo amle wo le bai ko gana بربي صدق يودان بربي صلي ربي صدق يودان بربي أنا جيبك سبارك صلي ربي صدق يودان بربي سبارك سبارك سبارك كنت سبب في صلاة الله يجب أن تجب أن تجب أن تجب أن تجب Different

Put

la ko borom tudde benn ñaar fukk la jëkkër nag moom moo ci gaaw cuuraay ak kaka kaw ma nu ngeen di waxee ñaar fukk la sëñ Mansour sëñ Laaji Maalik bim al arab sama papa dani xaaral ma wolofal ma ndax nit ñi dégg onto sidi la jama ni ngari dakra dana bi ba dal wëri ma jang bare ma dal bana bana xam ngeen li ma wax la la guddi benn bi day jàng fatiha baqara ba mariam bi ci des mu jàng fatiha mariam banaas banaas sollaw sollaw su paree nga dégg noonu duga allah aziz déggal na li mu wax nee na zikrul ilaahi lil xuluub bi àjjuma ci góor bu nu jullee takkusaan ba noppi duñu ñibbi ña ngay lal

fu nu tantal yonent bi dara fa teew ta ken xamul ban waxtu la kon nak damay ñaan ni ya ya سمات وتسليم waaw kër Seydil Hadji Malick bi bu leen ko lu ci waay man rek nga barkeel ya aliman lana aljamila lana alhabibi asarta ya aliman aaxirata xarit xasata xasata xasata noonu la ko borom daara ji daan ñaan yaa ni mag yaa ni mag lanal jamila asara waabir xasata xasata yaa ni mag yaa ni mag lanal jamila asara waxaafiran lanal xabi xasata xasata ولم يواعظا لنا الجريرا لم يكتك سترا من سرير xam nga lu waral lii Seydi El Hadji Malick Hadji Malick Serigne Mansour borom dafa gént maamam Seydi El Hadji Malick ni ko demal ma ci sa baay Serigne Babacar ne ko na ma yokkal yaa sëriñ Mansour ñëw ci sëriñ Babacar ni ko bàyyi saa maam nee na nga yokkal ko yaa man azharal jamil sëriñ Babacar ni laa koy yokke ni ko xam naa sama am dafa bëgg ma def ci tawassul déggal sëriñ Babacar mu ni yaa aliman lana jamila azhar به حسرة حسرة ولم يعز لنا الجريرة لم يفتك ستر وللسرير وللسرير ويا عظيم العفو عظيم العفو للأسير يا حسن التجاور عظيم يا واسعا يا واسعا مغفرة الأمير يا باسط اليدين يا ضر يا سامعا في كل نجوى مختار ويا كريم صح ويا كريم صح يا عليم ويا عظيم يا رحيم ويا مقيل العسرات بالفضل بالفضل والإحسان الإحسان ربي فعلا من قبل باستفاقها جل على جل على يا رب عبدي أتبع يا أتبع يا رب يا رب سيدي ويا مولاي يا ربتي أتبع يا أتبع أسألك اللهم يا رحمن ولا تزين الخطيبة على بلا دنيا بلا دنيا عذاب النار فهب لنا نجاة القدار الله حسبني ديني حسبي لكل باء علينا قائما ابدا وكذا لمن يصدني الله حسبي لمن بشوقك نبغاك ذاك عند مماتي حسبي الله وعند مسألتي في القبر ذا ملك غفرت ذنوب حسبي الله وعندما نصب ذا الآخرة نرجو نبينا الله حسبي إذا حسبي إذا مدسرات على مدي جل حسبي الله حسبي الله الله حسبي على نفس سوى قلوب توكلي وإيابي حسبي الله يا رب يا رب صل على المختار من مضر مضر في حقه قلت حقا حسبي الله كما تزل dilaji mani goldaji mani goldaji mani di ñaan danaan nit amna alal taamul ustur lana fi sitrika wa dunya bi atashimi atashimi asbir alayna sawma sitrin satira وانت يا ربي بين اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين maa ngi leen di ñaan ngeen ñaan yéen ñëpp